Ah, jërëjëfati mbokk yi seetaan déglu cabinet Biorahma ñëwaat tey leneen loo leen miin loo leen xam muy collagène xam ngeen ne suñu borom daf ñu bind bindun woo xam ni daa sukkandiku ci ay nattukaay yi nattukaay gi saa su ne rek day am foo xam ne bu fa tolloo ci âge wi tey am luy wàññeeku wàññeeku googu day feeñ ci dar wi waaye yenn saa yi nag am na ci lenn loo xam ni nag mooy suuf indi jafe-jafe lu ni mel muy pollution bi ndax xam ngeen ne saa su ne yaram wi dara wi day exposé wu moo xam cigarette bi nit ki di tux di ko bàyyi nit ki di ko noy moo xam gaz bi moo xam pollution bi moo xam ngelaw li ak yeneen yoo xam ni daanaka rek dafay indi njeexital ci wàllu der wi raxti dolli yenn saa yi nga naan ndox moo xam ni daanaka la ca nekk tooke la wala nga lekk lekkin woo xam ni tooke la njeexital yëpp day feeñ ki def sport ak ki bëgg maintenir deram ku ci nekk sa collagène su sa manqué day feeñ ñetti mbir benn collagène boo xam ni ci der la di sëlmu ngir der bi mën a noddantiku lépp luy pile mu mën a nekkaat indi la comprimer collagène nga mën ko jël chaque jour benn une semaine noppalu une semaine reprendaat une semaine. Euh, kon mbokk mi seetaan ak déglu indil la huile collagène nga mën ko def ci sa diw di diw yaa ngi rafet lool ak collagène léppay la.